salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum waa Tivaouane tey nag seen télévision Axi Production déggoo ci ak Tacko TV tey ñoo ñëwoon fii nii ci Tivaouane fas yéene leen présenté li nga xamante ne bi moom mooy gàmm bi nga xam ne moom la Moustarchidine di def ren ànd ci ak seen kilifa Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ni ngeen ñu gisee nii suñu ginnaaw ñu ngi euh, euh, ci ginnaaw course bi toog tey jii ne fas yéene leen dégtal lépp li nga xamante ne bi moom mooy xaw fii ci xam naa sans plus tarder rek Euh, gàmmu ren bi dafa spécial Moustarchidine ñoom ñoo koy def mais sans plus tarder comme ñu ngi ci mbedd bi dañ koy defaale benn occasion dugg ci jaaykat yi parce que yéene laaj lañ xam ren ci gàmmu gi ban impact la mën a am ci ñoom incha allah. waaw man la Binta Jaay dëkk Touba ñëw ci gàmmu gi rek pour jaay. si Moustapha Baram ja Baram mbooloo la Baram mbooloo weesuwul nga ñëw woote gàmmu ci course bi baana baana yeeg jaaykat yëpp ñëw fekk si la te incha allah képp ku fi ñëw ngir jaay dangay jaay ba jeexal. jafe na loolu nag moom ndax mètre mètre bu ne ñu ngi koy jëndee 7500 fi mu toll nii lii manal nii mètre la ak genn wàll maa ngi koy jëndee 12500 xam nga kon loolu seer na maanaam place yi boo ñëwee bala ngaa teg waxutu sa waay mais bala ngaa teg table ji kese dañ naan la fayal wala doo toog da ngay fay ba pare doogalal non non borom kër gi moom nee na moom moom fii waaw en plus tamit juma kii bi maanaam course bi mu dendal xam naa moo tax mu profité pour jaay ndax nee na lii rek la fi mën a bi moo. non non du mairie bi déedéet borom kër gi moo koy jaay. moo koy jaay waaw moo jaay waaw. d'accord mais loolu est-ce que du indi jafe-jafe ci seen jaay impact bi. ankay ndax parce que léegi nii rek la fi ñëw ndax na porte bi dafa jàkkaaroog mbedd bi waaw oto yi fii la ñuy jaaree di dugg ci course bi dañoo nugu see sax bam nañu garaaw léegi toog leen mais bu la laal mbedd bi. xanaa ñu wàññi ko doon na def yërmande xam na ñun ak njaboot lañu fa ñëw jaay am su wërsëg yóbbu ko suñu njaboot ñu dimbale ngir yàlla jaay jaaykat yi ñu jaay dàq seen wërsëg loolu daal laa bëgg man bu ma soñoon moom képp ko xam ne day jaay place na ci def yërmande nit ñi jaay kenn fu nekk day ñibbi ndax ñaar fan dong la fa ñaari fan yàggul jaay dem ñibbi yàqul kenn dara. bi moom ñun wax dëgg yàlla ci li ñuy liggéey nii mënuñu koo yëg parce que ñun mbooloo rek ñu soxla. mbooloo lañ soxla te wax dëgg yàlla fii ñu nekk nii mbooloo mi ñu ngi ñu fiy fekk parce que gis nga ko seen téléphones yi ñoo leen koy chargé di leen jaay batterie ak yenn chargeurs yi fii daal wax dëgg yàlla moom macha allah li ma fi gis moom alhamdulilah. waa place yi moom dañ koy luyee parce que dañu koy jaay mètre 7500 man daaw nekkuma woon fii maa ngi nekkoon ci buntu bitig bi mais pas bi ma luyee woon daaw moo ma luyee ren en même temps mais comme kër gi benn la te tamit fi mu mooy indi déplacement bi amul benn dérangement bu ma def quoi. non fii nag amaguñ fi problème yooyu moom fii moom wax dëgg yàlla bi fi ñëwee ba léegi liberté totale daal lañ fi la moom laa fi gis man man personnellement moom wax dëgg yàlla deux ans ma fi benn problème te maa ngi ñaan yàlla déwén lépp am mais même bu amee tamit na ma yàlla may place fii moom mën fee nekk am sama liberté totale. ah moom kay bu doon suñuy jàpp ñëppay gàmm mais nag kon ko demee woon tamit xanaa sant yàlla rek fii tamit moom macha allah waaw. ci ah day am mais kon ko li yàlla dogal foo mu am foo mu am rek kenn mënu ci dara mais bu doon suñuy taw lépp am mais nag kon ko amut xanaa ñu gën a yàlla rek ñaan yàlla fii tamit yàlla yokk ci xewal bi rek moom kay métti na métti na mais nag lu am rek nga tee ci rek nga gën a sant yàlla rek non borom kër gi moo ñu luwee moo ni ko luwee seer na mais kon ko ñàkk pexe pexe la nga jële lu ñu la rek nga jël rek 15000 euh, waaw diis na mais ah ñaar ñaari ñaari mètre mu ne mètre bi 7500. maa muy muy ñett dikkee quinze 15000. kooko bi la ñuy jaay wuuti daal luñ ci am lu ñuy surtaloo yóbbu ci soow xale yi xam ma rek. de bee moo ñu gën mais bee bu fekkoon ne amoon na daal day gën a arrangé ñëpp. na boo laalee fee kee laal fee comme ça ngeen de kon day for dara mais su dee ñëpp dañuy ñëw dajaloo benn place day xaameeti. man la Mame Diarra dëkk Thiès damaa ñëwoon ci gàmmu gi tey doon jaay si mais place daal dafa xaw a manqué lool mètre bu ne 10 000 francs te taxul nga am. course bi moom ku fi daan ñëw da ngay lal amul jënd mais tey place dafa manqué dañuy jënd place mètre 10 000 te du tax nga am. déedéet maire bi joxuñu place tey fii kër gi ñu taxaw nii rek dañu ñu ko interdit sànq ñëw nañ dàq waaw ndaxte ay homme de tenue ñoo ñëw ñoo ñu ñoo ñu ñoo ñu puusale fii. nañu may leen ñu ndax fii ngeen toog du suñu arrangement ñu ne ko ñun laluñu fi dañuy toog rek pour ker gi. waa métti na nag ci ñun ndax dañ daan ñëw gàmmo di liggéey xaalis xaalis bu weex tàll di ci dimbali suñuy waajur di ci yor suñu njaboot. Alaaji Mbay parce que ñëw nañ fi démb ba léegi nii mais dañoo xëy ba léegi nii ñi am problème mu fuñ lal quoi waaw ba léegi nii ñu ngi toog nii c'est que fi ñu nekk nii sax ay jaaykat ñoo fa nekk mais amoon nañ problème fuñ lal quoi. waaw parce fii daal buñ ñu ko bàyyi woon ñu lal fii ñun bu dee fay garawul sax c'est ku jógee dakaar ba fii moom parce que loo ko fayloo da koy fay pour mën a am fu mu lal quoi. problème bi moom gars yi ñoo bàyyigut voie bi quoi. sécurité yi fi nekk ñu ko téye mais xëy na dañ ko bàyyi nag xam naa si kanam wala suba daal incha allah dañ ko bàyyi. wax dëgg yàlla maanaam jaaykat événement mooy mbégteem la waaw buñ toogee 200 gàmmooñ tamit. ba tey sant yàlla waaw affaire bi ñu teree gàmmo yàlla na ko fi yàlla jëlee si barki alquran waaw déwén yàlla nañ gàmmo gàmmo gu neex fépp gàmmo ci kàttanu borom bi yàlla na lépp jeex ci kàttanu yàlla waaw bon non non fi nii moom ñaareel fii des fois da nga fay sax duñ la laaj dara waaw des fois dañuy bàyyi ci firi nii